Sénégal wane na tey mën na marche ci jàmm ak salaam il y a un mois préfet bu Ziguinchor di wax ci turu Macky Sall dafa interdiroon suñu manifestation gis ngeen tey amul benn auto gendarme amul benn auto armée daanaka amul sax auto police et pourtant tojuñu dara dammuñu dara saaluñu dara tàccu leen seen bopp lii li ñu wane mooy président Macky Sall moy nitu fitna waaye Sénégalais, yi duñu ay nitu sénégalais yi wuñu sax policier encadrer pour manifester pacifiquement sénégalais yi wuñu sax gendarmerie encadrer pour manifester pacifiquement sénégalais yi mun organisé organiser manifestation de dara du damm dara du Yakou dara du est-ce que vous avez tey donc ça veut dire que comme nous ko dit tout au long de la caravane assassin est moi, président Macky Sall assassin est moi, procureur de la République assassin est moi, ministère de l'intérieur assassin est moi, ñenn ci policiers et ak ñenn ci tant que dañu naan procureur assassin procureur assassin procureur assassin procureur assassin procureur assassin ci ndaw procureur assassin am kersa bu ñu wax procureur assassin ma ne ko déet procureur assassin la danaa leen wax lan moo tax procureur assassin la ay at ci ginnaaw commissariat bu Thiaroye ñu jàpp fa benn sénégalais mu ngi tuddoon Baptar dañ ko jiiñ sàcc xar ñu dugal ko commissariat ca ne ci caaroy ngir xam ndax moom moo sàcc am ndéet xar bi ñu sotti ko diluant ñu maas ko mu tàkk mu tàkk ba mu ëm sëram bu ngi koy mujjee seeti hôpital dafa amoon bandage karaw bi ba ci orteil bi foofu la mujjee gaañu lu tax ma ne procureur assassin la procureur bu defoon enquête ba identifier policier yooyu ba sanctionné leen kon tey François Mancabou du kon tey gendarmerie du am fit di rey suñu sauvegarde kon daaw policier du am fit di rey suñu 14 martyrs xam ngeen lu tax procureur nekk assassin parce que il y a quelques années ci ginnaaw am na Elimane Touré dañ ko jàpp commissariat du port bi mu duggee commissariat du port bokkoon nekkoon la dernière fois bi ko mbokk mi di gis procureur bu defoon enquête. François Manka bu duggee Idrissa Alexis Abdallah Diatta bu Bignona duggee loolu moo tax procureur assassin la Madame le procureur par son silence par son refus de mener des enquêtes le procureur par son refus d'identifier certains policiers criminels certains gendarmes criminels encourage les tortures encourage les ah assassinats de nos enfants Amna ay at ci ginnaaw deux heures du matin trois heures du matin mu nek ci scooter di daw ci allée du centenaire mu ngi tuddoon Abdoulaye Timera. Ben auto police fiir ko mbëkk ko mu dam mu mujjee hôpital les vidéos sont là avec le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture La procureur n'est assassin parce que procureur vous m'avez enquête même pour homicide involontaire des policier torturé Mankabou, quelqu'un Alexis Abdoulaye Chapignana,